salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi kaa bu rëy am na ñàkk a xam aadama wóorul ñàkk a abonné ci aadama wóorul kaa bi xew xam nga lan la Sadikh bokk ak maam Ndiaye Savon ndey ak baay moom moo doon doxaan mint bu soko mint bu génnee woon lëf léeg ween yi wan ko soko non stress léegi nag Sadikh dafa invité woon ah mintu ci këram pour ñu waxtaan ñoom ñaar fekk maam Ndiaye Savon dafa demoon Dubaay léegi ñu tëju ñoom ñaar ci néeg bi nag kattante nan wala kattantewul après naa ko vérifié Kumba moom moo ko wax Mame Ndiaye Savon Mame Ndiaye tey la ñëw Dubaay jóge Dubaay gis ne mint ñëwoon na fi tëju ak so ak ak ak ak Sanekh ci néeg bi léegi nag moom Mame Ndiaye Savon dafa jàpp ne mintu soko moo ko yónnee wala ay awuskiti wala joor Dieye joor Dieye wala soko ñoo ko yónnee këram pour muy saytu këram wala am kooyu Sanekh wala yàqal Mame Ndiaye Savon loolu la Mame Ndiaye Savon jàpp waaye mintu nee na cest à da koo bëgg di ko doxaan moo ko ñëw iri ko ne ko mu ñëw këram mu di ko vérifier appartement yi ñu tëju ci néeg bi ñoom ñaar Mame Ndiaye Savon mer na nag dagg na ay saaga saaga na rakkam kaa bi naa ko eggale abonné leen toog xaar ñu déglu vocalu Mame Ndiaye Savon yi ñàkk a abonné ci Adama Wóoru tey li ma nar kaa bëri na ñu déglu. du Kumba Gade man ay da ngaa ñëwoon tey sama kër te da ngaa xam nga ne damaa voyage dama demoon Dubaay tey nga ñëw sama kër. mbaa xam nga ni bis boo ma fi fekkee di nga xam ne soxo du bànn ñi la yónni ñëpp kenn du ci bànn nga ne maa la a bànn aller retour. parce que leeru alxuraan boo ñëwatee sama kër man nga fekk ma bu boobaa boo ñibbi leneen la ñuy wax. dèjà yow amoo da am nit da ngay am personnalité. nit da ngay am personnalité am li ngay bëgg am li ngay bañ bari ci démboo njaay li la suqu def lu lu dëkk ñaari nit moo tax dégguma woon bu baax li nga doon wax. Euh. ma ma ne la man la Mame Ndiaye Savon damaa ñëw ñu ne ma tey nga nekkoon. waaw ak ma tëjoog moom ci biir néeg bi. ma tëjoog moom ci biir néeg bi loolu lañ la wax. Eh, Mintu xam nga lan laa lay wax. Ah. sama kër bu fi sax tànk dëgg. Euh, Mame Ndiaye man tëbuma tëb rek dem sa kër. su ma sa kër. Ah, sa ko yóbbu te lu mi ngi noonu gars yi noonu la demee live minuit Sénégal deux heures du matin Europe li ma war a live bëri na wasalaam.